ya jëflu lu kenn jëful yaa am lu kenn amul yaa man lu kenn mënul maam njaaratulaay yaa gis lu kenn gisul yaa xam lu kenn xamul penkook so woog ñépp naa cey jaaratulaay bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci duniyaa jaaratulaay ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare kaña nal jaaratullahi budul ko nag sunu maam maryaama jaaratuna ko ñépp jaari jahim tey jaaratullahi budul ko nag rawdatu maam jaare fi poroxaan kon wóor ya daaxare dum dem jannatullahi nee leen ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuuba li man baalaxaayi am jaaratullahi nee leen ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuuba li man baalaxaayi am jaaratullahi xaddis ba nee ku dajeeg taarix ba topp sëriñ tuuba du dem naari ngir maam jaaratullahi haddis ba neeku dajeek taarix ba topp sëriñ Tuuba du dem naari ngir maam jaaratullaahi ñenentu téeméeri at ak junni mooy lañu wax loola di fanweeri at ngir Bamba lillaahi nee leen salaamun bu so jaaratuna yaa doon Mariama yow maam jaaratullahi yaa doon Mariama yow maam jaaratullahi Iisa ibnu Mariama ruuxullahi kun la moon Jibriilu ñëw fa yakoonu jaaratullahi Cheikh Bamba ne xaadamaam lam yaku neeg la mu am wala yakunu li mumkinin min allahi maa lay nuyooka ziyaara ka yërëm nu fi xol yaa ngi ruu yaa ngi sun cër yaa ngi lillahi yaa jar ziyaara diraam tey sukku tey joxe hëddiya lillahi ngir maam jaaratullahi nangul nu sun yéene ak sun jëfi nangu gu wér te boole noog bamba fil bun yaqu bun yoqi bu nu yàqit la bamba defoon saadix bu sax ci ndigal ngir jaaratullahi umu xadimi rasulillahi jaddatuna mam jaara bu soonu semmal jaaratullahi umul xadimi rasulillahi jaddatuna mam jaara bu soonu semmal jaaratullahi dem leen siyaare ji sunu mam jaara xudwatina royteef la fii Porokhane tey jaaratullahi dem leen ziyaare ji sunu maam jaara xudwatina royteef la fii Porokhane tey jaaratullahi ngir moonu wan ku nu doyloo doy rasoolu ta doy rabbul waraa Seexu Bamba jaaratullahi doy loolu doy doy na Cheikh Bamba nu doy abadan te moo doonay xayru xalqillaahi billaahi doy loolu doy doy na Cheikh Bamba waanu doy abadan te moo doonay xayru xalqillaahi billaahi jaajëf te jaajëf ndeya yaa jëf lu kenn jëful yaa am lu kenn amul yaa man lu kenn wenul maam jaaratulaay yaa gis lu kenn gisul yaa xam lu kenn xamul penkook so woog ñepp naa cey